dama ni me concernant du dëgg c'est faux c'est archi faux mm-hmm. kenn mënul ma waxal ni danga am document bu bu manqué. doo doo ah? ci affaire yi. kaay moo leen. Mm-hmm. man le 20 décembre laa daw ca sama banque Crédit du Sénégal. defar benn chèque certifié bu war a dem euh, caisse de dépôt et de consignation mu ngi nii trente millions la fay caisse de dépôt et de consignation pour mën a nekk candidat mu ngi nii leer nañ ñi yéen a ngi koy lire ñu ngi koy gis ñu ngi koy gis ñoom le 21 ñu defal ma ñaari document benn quittance pour wane ni jot nañu xaalis bi le 20 le décembre lañ def quittance bi mu ngi nii leer nañ caisse de dépôt et de consignation moo ma ko defal le 21 décembre ñu defal ma attestation bi nga xam ni ki ko signé mooy Cheikh Issa Sall moom mooy directeur général bu caisse de dépôt et consignation mu ngi nii donc man le 21 sama kayitu caution yépp mat na sëkk man maa defar dossier bi dem euh, conseil constitutionnel di wàññ parce que xam nga bu boo boo bëggee yëf fi baax da ngay jëlal sa bopp yëf yi wàññi naan document bi nationalité baa ngi nii. Mm-hmm. extrait baa ngi nii. Mm-hmm. bu ma ñëwee ba ci caution daan ne leen caution baa ngi nii ba mu mat juróom-ñeenti document. Mm-hmm. di ko wàññi di ko wàññaat di ko waññ di ko wàññaat parce que doo sonn ci parrainage ba pare au dernier moment ngay nangu yenn yi dal la. sama dossier la ca manqué mu nga manqué. conseil constitutionnel. fa la manqué. fa la manqué. lan lañu ñu manqué foofu ñu ne costion bi. Ah. ñu ne caution bi moo manqué bi ñu waxee loolu mandataire bi mu ne leen kon may leen ma comme gisuleen leen may leen ma suba ma indiwaat kayit yi parce que kayit yooyu moom mu nga kees de dépôt et consignation inspecteur Alioune Ndiaye léegi la may wax ni yow leen di ba. Hmm. fekkante nañu. commissariat commissariat central maa demal sama bopp pour ñu defal ma certificat de perte bañ ma defalee certificat de perte bi parce que ci rapport bi mu ngi nii rapport bi mu ngi nii récépissé de dépôt dañu ne mandataire bi bind nañ ko noir sur blanc le mandataire s'engage à produire le document de la CDC le jeudi 28 décembre 2023 yaa ngi gis de mu ngi nii alors ma dem à la police wuti certificat de perte jóge fa daw dem caisse de dépôt et de consignation xaar bi metti lool wax naa ñépp mais directeur bi dafa absenté woon momentanément ça peut dafa doxi woon soxlaam y a pas de problème bi document yi ñëwee ma dem ma piqué directement conseil constitutionnel. kenn nekku fa. y avait personne. y dans l'après-midi y avait personne te xam nga boo demee police defar premier document de perte ba dem con euh, CDC pour ñu defaraatal ay duplicata. Hmm. ça prend du temps ça a du temps mais dama pare rek piqué foofu après ma woo greffier en chef bi fexe naa ba am numéro ma ne ko lii moom maa ngi buntu conseil constitutionnel mu ne li ma lay conseiller dans ce cas mooy nga bind président du conseil constitutionnel monsieur Mamadou Badio Camara ma bind ko tàppe jël document yi yi ma leen wan léegi chèque yeeg kayitu CDC yëpp boole ko ca ne ko nag na ma dugalal yëf bi parce que man fay naa mhm. <coughs> n'est-ce pas greffier bi jël ko bi mu jëlee bi mu ko jëlee mu ne adjoint damal déposer ko ci euh, cabinet euh, président bi ce qui a mhm. été fait ils avaient donc mes documents avant ñu traiter dossier yi amee woon nañu samay document nest pas alors man nag euh, lenn rek moo ma jaaxal mhm. mooy application bi ñu ma defa lan la lan moo tax ñu def ma lii moom laa mën comprendre. alors que document yëpp mat na. document yëpp mat na y la bon foi bon foi bi mu ngi fi euh, application bi conseil constitutionnel def ci mbir yi fii man dama am impression sama noonu laa amee yëg-yëg te bu ma nekkoon étudiants yi loolu laa leen di wax bu may interpréter décision bi. Hmm. dama naan. conseil constitutionnel bi ñuy traité sama dossier du ay nit ñoo ma doon traité dossier bi xam nga ñu ma doon traité robot xam ngeen nitu weñ xam nga mën naan nii nii nii du mën a bouger ñooñu ñoo ma traité sama dossier c'était robotique y a pas eu de réflexion hmm. xalaatuñu seen xol yëgul dara amuñu woon xol ah manque d'humanisme moo tax ñu def ma nii parce que man en plus de kii bi wane na ko rapport bi ñu ma jox ba ñu déposé nee nañu déposé naa cinquante mille six cent treize parrainage quarante quatre mille cent cinquante lañ doon laajte joxe naa cinquante mille six cent treize parrainage te lii muy liggéey bu metti te naa caution yàgg na n'est-ce pas lii dal nit nag yenn saa yi doo xam man xaw ma ba tey sama document caution bi fan la réer ci biir conseil constitutionnel loolu bëgg naa ko xam. boo leen di déposer n'est-ce pas c'est scellé ci enveloppe ngeen koy def. bu ñuy déposer ci saa si. Mhm. ce n'est pas scellé. Mhm. da ngay ñëw. di joxe ko ñuy bind benn par benn. bi mhm. après la ñu wax sama mandataire ne ko caution bi nekku fi. te boobu mu ngi taxaw. sama mandataire. waaw mu ngi taxaw. bi ñuy ubbi de papier euh, enveloppe bi. ban enveloppe. non moi je pensais ñoom ñoo leen laaj par benn ngeen di joxe par benn. non da déposé ñu woowaat la beneen jour pour saytu kayit yi. dañ lay da ngay déposé après ñu sele ko. voilà parce que. le lendemain mu ne lañ ko sele. après dañu teel a dem nekk na seen i loxo kayit yi nekk na seen i loxo ñoom. nekk na seen i loxo ay fan. en tout cas mandataire bi. mu ngi ñëw le 26 ci guddi. yendu fa fanaan fa ba 4 heures du matin ci la ñu mën a découvrir ni kayitu caution bi nekku fi te kayitu caution bi man yéen wan naa leen bu ñu nag bindee ne dama am document yu manqué daara manqué wu ma sama document yi ñu nga ca seen loxo conseil constitutionnel daal dem na fa réer na joxe naa duplicata yi ñu di ma bindal naan li tax sama dossier jàllul xooluñu sax samay parrainage xooluñu ko mu nekk liggéey bu méttee méttee méttee xooluñu ko ndax nee nañu dafa am lu manqué ci samay dossier xam lan la te foofu li ma bëgg wax rekk mm-hmm. mooy mm-hmm. li mësul woon mën a xew ci benn réew xam ngeen lu tax caisse de dépôt et de consignation daf ma jébbalaat ak yi yi nga xam ni le 20 et le 21 pare woon na xam nga l'esprit du droit xam nga droit affaire la ñun ñii ay jàngalekat lañ quarante ans maa ngi koy jàngale booy appliquer droit doo mel na weñ machine machine buy buy appliquer nit kuy appliquer nga kii fay na lii li li li lii xew mën na dal aussi duñ la jox quittance te fay moom laa bëggoon wax dafa xam nga administration buy liggéey dañoo war a déggoo seen biir